j'ai xool ba sonn taxul sama problème rek la après si laa pourquoi pas mais essayer comme suñu maam li ñu daan def karité baa ngi fi baax na baobab a ngi fi yenn huile yi tamit mu ngi fi. Mhm. donc si laa commencé def sama ay mélange et tout ça donc rien de formel. Non, la, la commencé à utiliser mon marché après cela année, pourquoi pas me commencer que commercialiser parce que dama mës am de mon goût entrepreneur. donc non, là que commencé après c'est vrai que première fois bi dama échoué C'était en 2008 2009. Mhm. donc je ngi doon door am sama maîtrise. aw mon lu may def du chemin chemin bu metti sax <laughs> donc di wut yoon di insister di insister malheureusement à l'époque, xam nga rek Sénégal dañu bëgg lu baax donc nga indi sa ay pot yu ndaw <laughs> blédina et tout ça def si qui ay produits yoyu du ñëpp kay wolu non donc sama entourage rek ñoko ko accepté woon mais malheureusement clientèle bi même si nit dina ñëw utiliser ni baax na mais bon dañuy xaw esté et après cela laa bàyyi projet bi tok ba 2016 yalla def ma relancer ko wat essayé ko fast test en 2015 donc instant yooyu maa ngi doon liggé ma ni léegi naa def fast test su doxee après ma xol numay négocier ak parents et démissionné parce que <laughs> vraiment entrepreneuriat dafa mës a yàgg ci man de bu ma nekkee xale. te te il faut nga am fit. pour def ko dama koy faral di wax. merci il faut nga am fit pour def ko fit bi mom ñàkkul won mais xam nga rek il faut nga. Euh, japp ci lu deuguer aussi poids social bi xaw laa. voilà mi ngi noonu parce que parents aussi duñu fayé fayee cinq ans d'études nga yew souba naan len damay dem jaay diw boobu. <laughs> donc il fallait réfléchir à un projet bien ficelé. xam nga motax man ni euh, ñew fi diko def affaire informel yoyu déedéet il faut sama papa ma tege ko lu solide comme ça je mën me mën ma si parce que gars macha j'ai des parents ils sont assez compréhensifs Non, la formaliser entreprise bi commencé être chimiste parce que je me disais comme que léegi dafa nar des choses euh, en grande quantité vu que léegi ça commence à marcher naa wut nit yoo xamante ne loolu lañ jàng xam na non, mi ngi noonu euh, si es biologiste ou chimiste nous commencé à faire ay dosage et tout ça en attendant man Madame, dem defi ay cours en cosmétologie et tout voilà loolu alors euh, j'applaudis hein, initiative bi <laughs> en général <laughs> vraiment c'est une très belle initiative macha allah macha allah euh, dommage que taw bi mayuñu ko trop mais doon nañ ci gën a xuus sax mhm. parce que euh, euh, jafe na nga gis koo xamante dafa mhm. essayer benn yoon daal di daal di réessayer alors que échoué na sachant que da nga ci def sa xaalis def sa énergie def ci coono doo ci jëlee xëy na li nga bëgg ba pare nga defaat même chose euh, man de je salue <laughs> l'initiative et di la ñaanal bonne continuation espérer aussi ñi ñuy sétane dinañ ci bu papa aussi ñu remercier ndax alors euh, Madina lu ñuy lu alors xana di euh, wax femme développement yi. Mhm. bëgg na né ñu nous gëm mhm. li ñu andi ak mhm. euh, naka lay contribuer ci développement Sénégal. lan moy place jigen ci plan Sénégal émergent ndax jigéen ñi gis nañ seen bopp ci plan Sénégal émergent man bëgg naa loolu ñi nga xam ne ñoom leenu dénk plan Sénégal émergent ñu wàcc ci base bi expliquer sunu naataango jigéen ñi mhm. koom-koom bi ci ne liñ ci séntu ci jigéen ak naka la mën a yëkkatee jigéen mhm. ba mu dem ba dootul sonn

lim fa gis rek mu àndil ko sénégalais yi. dëgg la loolu mooy rolam boo yoxee média da nga ci tabax sa réew. dëgg la maa ngi sargal waa RDV. waaw ne ñuy contribuer ci tabax réew mi. di ko jëmale kanam. Euh, foog naa ne femmes yëpp dinañ gis seen bopp bu baax a baax. ci seen bi di euh, RDV. Euh, léegi léegi dañuy daal di dalalaat yeneen i invité. jegeeguñu sax pare ndax tey dañu bëgg wane valeur femme sénégalaise. alors euh, ni ñu leen ko waxee ci bi ñuy door euh, jigéen bëri njëriñ fii ci réew mi waaye itam euh, valeuru jigéen dafa jot ñu di ko fësal bu baax a baax chaque 8 mars ñu def ko mais euh, dafa dafa war a gën a fës ah ci sama xalaat bu gàtt ba tax na euh, tey ni ma leen ko waxee woon rek dina dinañ leen wan jigéen yuy yëngu ci domaine yu baree bari loolu moo waral ki nga xam ne moo ñu fekk si plateau bi fekk si ñu balaa ñuy gën a xuus ci waxtaan bi dama koy nuyu kontaan bu baax a baax nag dalal la ndey xaar mu mm. nekk femme de développement

événement la bo xamantene marqué histoire parce que ci la euh, la valeur de la femme mais je me dis que chaque jour nous ko parce que 24 heures sur 24 nous ngi les li tax ñu naan am société. la bi société je veux dire ci biti ci bi ci bi rek xel day dem 8 mm-hmm. mars

am na ci wàll wu muy yëngu moom tamit bu amaa am solo sànq nga am loo ma ci ñamal mu intéressé ma trop mais comme comme man damay bëgg di di dégg di déggaat dama lay bàyyi. dëgg la soxna Ngoné euh, wax ñu ci li muy yëngatu lan la. moom li muy yëngu femme de développement la. Mhm. te bi muy nekk gune la ko commencé. d'accord mën naa ne bokk na ci élève ENDA tiers monde yi. bu nuy wax ENDA tiers monde tubaab bu nuy wax Jacques Bugnicourt. Mhm. moom moo sant ci Thiamonde mhm. ndax mën nañ ci déglu Bali Bousso waaw mu wax ñu moom ni mu commencé jaar jaaram ak fi mu yegg si tey fi mu yegg si d'accord soxna jaara waaw man Bali Bousso moo ñëwati rek kontaan ci invitation bu ngeen ma invité ci 8 mars comme lu ñu wax ñëpp lu ñu wax dëgg 8 mars dañ koy sargalee jigéen ñi te jigéen ñi tamit ñoo yor développement dëkk euh, dëkk bi loolu duma ko rus di ko wax du ma ko tàyyi di ko wax mm-hmm. ndax jigéen bu nekk góor góorgóorlu waaw man comme nu ko ma dina waxee dama commencé rëbës laa jóge ñëw Enda fekk maa ngi nekk xale Liberté 6 Baraka léegi bu ma ñëwee Liberté sis Baraka foofu lañ nekk mais xëj na début bi metti woon na comme ma ko waxoon sama reportage ndax ñaari vie la comparé ndax bu ma demee nekkoon rëbës maa ngi doon dund dund bu lii mais bu ma ñëwee barak ñaari dund yu bokkul ndax dem na fekkuñu fa ndox fekkuñu fa courant fekkuñu fa dara mais yàlla mu ngi fa ndax nit foo dem yàlla nekk fa ak yow. waaw ndax du ma tàyyi di ko wax te tamit du ma di ko wax mais avec Jacques ko ñëw na dimbali ñu xam nga dugal ñu école. jangal ñu civilisation ñu yépp xam nga lu ñu bëgg fu nekk yàlla na gënal nekk Jacques après Ben ONG bu nekk bu 87 ñëw jël kii bi jël comme Jacques gagne, na moom tam mu ñëw ak ñun 18 ans laa nekk euh, présidente GIE man ak samay yaay yu nekk plateau amna yenen yeneen GIE yaakaar am fi GIE mbolo baraka ak djubo euh, ñepp nga fi ñom ñomay may ñu ngi ci plateau bi mais man bu ma amee 18 ans la nek président GIE. d'accord jiite mbolo jiite jeune yu nek baraka. Hum. xam nga nek nak ci développement. xam nga di kii développement ndax dañu doon def ay financement day ñew xam nga yépp nga jiite. ñuy xool nan la ñuy def ba stade bu ñu nekk ñu génn fa. waaye ngoone mhm. xam nga jiite boobu dafa am lu ko waral. Mhm. moo tax jàng baax. dañu xooloon ñoom ci euh, jànq yi kan moo ci ëppoon niveau ñu jiital ko. niveau d'étude niveau d'étude. Mhm. ndax moom mën nañu wax passage boobu. waaw waaw waaw comme dooy wax rek comme ñu ngi woon foofu bu ñu ñëwee. bu ñu xoolee ñun jeunes yi dañoo tànn xool sama ak sa morom niveau fan nga ci bi moment <laughs> en may fal pour ma nekk euh, e, def seconde ma mais instant yooyu man maa mais ma sama

dootuma dem ci classe yi di jàng waaye bu ma ubbee internet yi am na ay cours yoo xam ne mën nga ci renforcer sa niveau mhm. foo mënti toll rek tey ji internet am na solo loolu loolu loolu te boo gisee sunu euh, jigéen ñi ku ci ne yaa ngi yor portable la ku ci ne yaa ngi lijjanti ci portable mhm. waaye portable ak internet mën na ci jàng lu baree baree bare mhm. waaye boo boo tayalee ba mel ni sama yaay de tem nga jël téléphone bi naan ibil ma fi whatsapp bi ma xool vidéo bi. nga ubbil ko. bu yàggee boo fi hmm. nekkul dina ko jéem a ubbi. ah waaw damay ragal mu teg téléphone ba dem de. du ko teg <laughs> du ko teg ndax c'est attractif. Ah. xam nga mag tam dafa bëgg di découvrir. dëgg la donc c'est important aussi ñun suñu appareil yi mu ñuy jëriñ. Mm-hmm.

Euh, di dugg ci euh, ay organisation ay GIE ak yoyu mhm. mais loolu maa ko jangé école parce que toujours buñ dan def ay euh, foyer wala genre yoyu comme dama mos sop toujours damay dugg bok ci organisation bi. Mhm. di jité rek am air yoyu dal waaw na nga bok ci dirigeante rek voilà. légui après je me suis imposé par la suite comme je suis une femme battante bo xamné je me laisse pas faire toujours damay casse droit wu jigen ni mhm. avec le temps.

ba récemment avons eu un mouvement bu bees une plateforme bu bees pour ñu euh, euh émergence au féminin mhm. bu avons créé Diourbel lañ ko créer euh, di def ay financement pour le développement de la région de La euh, directrice du financement du ministère Amadouba Ba été ko jiite Fat Diané man ma équipe restreinte bi nga xamné piloter le mouvement donc ça fait honneur et c'est l'occasion aussi ñom ma sargal choses parce que dañu nek ay femmes

d'abord. le 3STV télé bu bees la euh, mu ngi tudd Seydina Serigne Saliou TV. Mhm. donc euh, ñu ngi ko créé ça fait maintenant 9 mois. alors yàlla dogal ci biñ koy door ma bokkoon euh, ci équipe bi nga xamante ne nii ñoo ko ñoo fa nekk di fa liggéey ma nekk la directrice des programmes. Mhm. c'est très rare en général ñu jël jigéen nommé ko directrice des programmes balaa muy rare est-ce que am na <laughs> man yaa ko wax man waxuma ko alors loolu je pense que dafa am lu ko waral. waaw te booy xool lu jëm ci multimédia wala lu jëm ci technologie wala yooyu góor lañ ci doon séentu. dëgg la man nag man maa am fitu ñaak jàll. song ko song ko lu tax. waaw lu tax parce que dañ ne loxo bi nga xam ne mooy takk tubéy loxo boobu mooy takk sër. dëgg la te cerveau bi góor yor bu ko jigéen ëppalewul sax. Mm. te xel bañ nañ ko ma nee nañ jigéen dafa lukku njug soppal te bul wóolu waaw ma bolé yoyé yépp nak mané ne lu mu mën jigen mën nako ko fukki yoon waaw kon il est temps ñu ñu ñu ñu casser yenn yenn tabou yi casser euh, yenn yenn yenn arrière pensée yenn yenn idée yi nga xamante ni c'est un peu démodé voilà daane man je vais m'imposer dugg ci fi gëna a ci euh, métier yi man mm. jigen ma ñoo def fa lo xamante ni xeyna góor ñaa ngi koy def waaye bu ñu sàgganul léegi ma raw leen ci. Ndeye xaar nee na ñun jigéen ñi on est le sexe fort loolu la wax message boobu la lancé. <laughs> waaye ngóone. <laughs> waaw góor ñi nag ñooy suñuy xarit. waaw suñuy xarit lañ mais ñoo leen mën. ñooy suñuy borom kër <laughs> ñooy suñuy doom dëgg la. noonuy dooleel nag. dëgg la ndax nag. Hmm? suñu bàyyiwul ñu dem. ah nu guddee bu nu dellu see dinañ nu soow. Ah. bi nag. Eh, eh, yow nangu woo. tey góor amu fi yoon xam nga amu fi place. <laughs> Madina yëf yi nag faw nu équilibré ko. Eh, waa mais tey ñoo xewle nag parce que ñoo xewle. waaw waaye ñoom nag. Ah, ñoo ñuy dooleel. ñoo leen di dooleel. te gis nga léegi euh, combat pour la femme. Mm-hmm. góor ñi dañ ci dugg lu baax a baax a baax.

moo koy may lu mu song rek objectif bu mu bëgg atteindre rek dina ko atteindre ndax jomam moo ko may loolu jigéen bëggul échec te ni muy sàmmee alalu dépense am ci kër gi noonu lay sàmmee alalu borom entreprise bi mm-hmm. bëggal ñu xas ko benn yoon ci nekk sa liggéey baaxul wala des na moo tax yenn saay sax jigéen ñi di guddee ndax liggéey bi bu jeexul du nu bëgg a ñibbi di fi bàyyi restant naan bu ëllëgee ma def ko ndax ñoom dañu gëm yàlla ragal ko parce que xamuñu ndax seen ëllëg. dëgg la bëgguñu ku leen yeggaleel. te foog naa sax euh, gestion bi. art de gérer bi fokk na dañu dañu ko tam dañu ko mooñaale ndax ci kër gi lay tambalé dem ba fo mënti nek muy ci entreprise ba muy fenen fo yëngatu itam daf lay top parce que dang koy tam à basage ci kër gi da nga gis né bo nekké xalé ya boy di euh dañ lay dañ lay né bo waccé na nga raxas ndab bi wala jangé wulé na nga togg agn bi di la di la former à ce que nga am ben flexibilité bi lool itam fokk na dimbal na jigéen ñi bu baax yaay ha ah. effectivement waye fi fi euh, Madina daaneele di mm-hmm. eh, bàkk góor ñi mm-hmm. man eh, foofu laay jëlee pour expliquer ko simplement parce que eh, tey jii bisu jigéen ñi la tey moom lu ñu mën a wax rek sargal jigéen la mm-hmm. parce que jigéen dafa doon lu am solo sookulu société bi la mooy kënu askan wante toll nañu ci xeex suñu yelleef ngir askan wi mën a baax waaye li ñu seetlu moo di gis nga xeex bi ñu song pour suñu yelleef pour mën a taxawee nag suñu place tooge suñu place pour askan wi mën a jubbantiku ñu jëm ci développement. Mhm. il faut bala ñu caa egg suñu càmmiñ yi ak suñu doom yu góor yi. Mhm. ak suñu baay yi. Mhm. ak suñu nijaay yi. ñu ànd ci ak ñun ci xalaatin wi. jàpp ci bu baax ndax mbir mi problème mu xalaatin la ma sœur comprendre nañu euh, ne effectivement euh, dañuy toll ci jamono boo nga xamante ni dañuy fippu carrément mm. euh, pour nag taxawal suñu tahawal fës ko wante fii ñu toll dafa laaj ci di xeex bi ah, fi ñu ci toll combat bi nag dafa laaj accompagnement ñu tàllal loxo góor ñi d'accord nax naxal leen ñu ànd ak ñun ci conception am ci dundin pour soppali suñu jamono. Mm-hmm. parce que nag ñun ñaar ñoo bokk euh, euh, njaboot gi bokk société bi. dëgg la ñoo koy joxante loolu la ñuy tuddee euh, ci suñu langi kuréelu jigéen yi dëgër maanaam mouvement féministe yi l'interface positive entre l'homme et la femme pour construire un monde meilleur. Mm-hmm. il faut que ñu changer gisin wi ne du caagante ni ñun jigéen lañu dañuy. daal di tamponné góor yi du caagante ni ñoom góor lañu dañuy tamponné waaye déedéet dañu war fexe ba ñoom góor ñi ñu comprendre ne ñun dañu war a jàkkaarloo positivement. Mhm. xalaat àdduna bi ci beneen tëralin beneen façon boo nga xamante ni suñu jokkaloo dana jur àdduna boo nga xamante ni moo gën a rafet. sunu doom yi dina sunu am conscience boo nga xamante ni. dootul ti conscience relation de genre bi nga xamante ni moo amoon maanaam kii doon buur kii doon jaam kii doon euh, euh, euh, seefam kii doon suqam loolu dindeeku fi te loolu li koy indi moo di il faut que ñu indi goon ni ci compréhension bi il faut que ñu nangul ñu ni jamono bi dafa war a changé il faut que ñu nangul ñu ni ñun itam nit la ñu am nañu xalaat am gëdd am personnalité te jàppoo bi rek moo leen di jëmale kanam ñoom itam il faut ñu gis ci seen njëriñ. il faut que ñu gis ci seen gis euh, ci njëriñ di ci di ci gis seen njëriñ foofu laa ko euh, euh, ak. ak Madina mm. te loolu Nations Unies ci boppam. ci CSW maanaam commission bi nga xam ne mooy saytu nekk nu jigéen ñi ci àdduna bi ñuy bi ñuy def évaluation plan de Beijing at mu nekk dañu koy dajale évaluer ko dañu gis ni dëgg la état yi engagé nañu. Mm-hmm. ne dananu góorlu pour jigéen ñi jëm ca kanam ñu gëddaal leen jox leen seen place waaye effort yi ci état yi def ak partenaire technique et financier yeeg jigéen ñi suñu mbootaayu jigéen ñi quatre vingt ba léegi ñoo ngi ciy xeex ñu ne effort yi ñu ci def bari na waaye ak euh, euh, ak accélération bi nu ci bëggoon. résultat bi ñu ci doon xaar. des na dafa yéex ñu ne li waral nag ñu war ko mën a gaawe moo di ñu tàllal loxo góor yi ñu ñëw ànd ak ñun ci mouvement bi pour que ñu mën a ba ma xa àdduna waaw loolu na solo te gis nga ngoone xam nga lu tax góor ñi gën cee sawar mhm. ndax nag ñoo jur doom yu jigéen yi waaw te gis nañ bu baax ne seen doom yu jigéen yi dañuy gën di xarañ mhm. te nag xam nga rek relation papa ak doomam bu jigéen waaw ñoom dafa am préférence y relation particulière mhm.

objectif bi man de maa ngi ginnaw di xaar euh, nga nga atteindre ko ak jamm inshallah hein. euh, comme ça ñu est-ce que duñu ubbi ben télévision spéciale femme nga xamné ne ku dul jigéen duñu la recruter sax. waaw dafa mel ni sax ñu ci yoon bi. <laughs> ñu voilà. <laughs> waaw thème mu évaluation wu ren bi aduna yépp dañuy saytu fu jigen tollu waaw nee nañu jigéen ñi jigéen ñi euh, nekk ci àll bi la ak ak xalé yi jigen ni dëgg la waye dañu né il faut que ñu waxtaan ci jigen ak nouvelle technologie mo waral nak ma ma may félicité vraiment. Mm-hmm. Ndeye Xaar euh, Ndeye Xaar. Euh, ñu di accueillir la télévision boobu. Mm-hmm. Euh, avec beaucoup d'espoir. Mm-hmm. parce que les les femmes dans les médias. jigéen ñi ci biir xarala yi. yi nga xamante ni ñooy saytu taxawaayu doomu aadama yi ci développement. dafa am solo bu am am. solo bu rëy rëy rëy rëy ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey. pour tink jigéen ñi pour jëmale leen ci kanam. dëgg la moo tax bu ma gisee personnalité bu mel ne ndey xaar nga doon chef d'entreprise. am ci taxawaay ñun dañu koy sargal di ko di ko rafetal. dëgg la di la tendre loxo di ñaan yàlla nag mu gën a jëm kanam. te nga am ci attitude bi nag ci sa euh, euh, moroom yi nga xamante ni sa mm. nattaango yi nekk ci média yi. ngeen àndandoo dëgër parce que nag seen taxawaay ci biir média yi ñun mooy sunu ndam. Mm. ci xeex bi ñuy xeex. dëgg la dëgg la jërëjëf bu baax baax ñu ngi lay jaajëfal yaa booy euh, am na solo. nday xaar dina ci am taxawaay. loolu ci bëggoon dolli tuuti rek. mooy même bu dul affaire télévision médias yeeg affaire yooyu donc euh, dañuy aussi ci technologie parce que xam nañ ne jamono. Mhm. Euh, ba mu yàgg yàgg na mais euh, daanaka lu jëm ci wàllu développeur ak ay webmaster ak yooyu yëpp. ci góor lañ ko mhm. mais ñun jéggi nañ sax léegi ci multimédia bi dem ba ci technologie bi mhm. dem ba dugg ci di defar ay application ay logiciel di defar ay site internet di manager des personnes et, des pages gèrent les les communication donc ce qui veut dire que vos communications euh, en général. parce qu'à la base euh, marketing communication la def leadership consultant. consultante. est-ce que est que juste polyvalente voilà polyvalente <laughs> voilà hmm. en parlant des hommes aussi. Hmm man suis ma ma liberté totale Je continuer l'essentiel nga pour développement réel. gërëm bu baax Mbacke Balla sama sang ba. Ah, Mbacke Balla noonu noonu la mën a sant <laughs> noonu la mën a sant alors merci uh-huh. beaucoup. Euh, Diarra Bousso merci beaucoup Ndeye Khar yaa booy jërëjëf euh, ci contribution bi am na solo bu baax a baax. Madina da ngay toog ak man ndax dama laa yittewoo bu baax a baax ci plateau bi ñu daal di euh, dalalaat rek yeneen i femmes influentes yeneen i femmes de valeur yoo xamante ne nii itam dañuy participer bu baax a baax ci liy doxal réew mi itam dañuy def ay jéego ci li nga xam ne mooy jëmale jigéen kanam alors euh, du ñu tàyyi di ko wax benn jigéen yaafusatul benn jigéen toogatul di xaar lenn kenn ñëpp ñu ngi jóg di yëngu moo xam ci biir domaine wala ci bi ci des euh, loolu tey moo ñu fi dajale pour fësal li ñu mëne pour fësal li ñuy jéem euh, te sax yeggaguñ ci ndax ñaan nañ mu gën a sori gën a yaatu li nga xamante ne nii moo moom la ñu am déjà loolu moo waxal tey ma kontaan bu baax a baax dalal yeneen invité yi nga xam ne ñoom ñoo ñu fekk si ki ci njëkk nag ma di ko nuyu di. di euh, Ndeye Mati Amar euh, nek euh, jigen waye nek directrice d'entreprise nek aussi di gérer sax ñaari entreprise lay wax buñ ko buñu buñu buñu ñu ci li nga xamanteni yépp sax mom la jaar buñ ko bëggoon wax day bëri mais damay rek japp fofu nuyu la bu baax a baax kontaan si wuyu si bi ñu wuyu ci bir plateau spécial 8 mars bu RDV. jërëjëf Ngoné. Mhm. ma ngi lay fay bu baax. di nuyu jigéen ñi ma fekk ñëpp. Mhm. di leen sargal ci journée de la femme bi. Mhm. ñu xam ne journée de la femme maanaam dañuy wax journée de la femme mais chaque jour c'est journée de la femme. Mhm. ñu xam ne jigéen ñi ñooy àddina ni ko sama morom soxna si waxee woon sànq. Madina waaw géej jigéen géej la. jigéen mooy àddina bu ñu xamee sunu bopp rek dinañ xam fu ñu jëm. man ndey ma ci Amar la tuddu mhm. di madame si. suis mhm. coordonnatrice holding Amar. Mhm. di diriger aussi une société qui s'appelle ABE. Wow, wow. ABE mu nekk euh, euh, aussi. ci ci bir holding bi la euh, Amar ça fait des splits. électroménager ak qui de véhicules, location véhicule. les daal mi ci je manage dal ay xalé mhm. presque ay xalé ñoo ci nekk jigéen ñi ñoo ci ëpp mhm. ñoo ci ñooy diriger presque société ba légui technicien yi ñooy góor ñi mhm. mais manam dal comme li soxna ci waxoon sank jigen a góor ñu jappalante toujours dëgg la parce que man suma amé amee bobu di ko def di manager fofu di en même temps di coordonner holding bas coordonné coordonner le management le fofu mhm. parce que tout ce qui est holding c'est une entreprise qui est la yu bolo mhm. légui nak ñu leen ñu holding il y a plus de 6 7 entreprises yu nga xamné chaque semaine dama leen di wo ñun ñu tassé ku nekk joxé ce qui de la semaine ngeen def le point ñu def le point ci am ci semaine bi. waaw li war a li ñu def yépp ku si nekk ñu xam sa financement ce ce budget et tout ça loolu yépp dañ koy coordonner euh, c'est un peu difficile. Mhm. mais man aussi góor a may jàppale. dëgg la muy sama borom kër. waaw ma di ko sargal parce su jigéen ñi la waaye man je dirais que j'ai un mari formidable. dëgg la mi nga xam ne nit ku wér di laa man. mais si j'arrive affaire tout ça bu ma koy def moom mi ngi sama ginnaaw. dëgg di ma jàppale. moo tax maa ngi sargal jigéen ñi tam waaye maa ngi sant sunu góor ñi. Mm-hmm. nga xam ne te foog naa ni du yem ci borom kër gi. déedéet ndax ki ngay liggéeyal. am na lu mu doon ci yow tamit am na waaw. am lu mu doon it ci réew mi. waaw euh, du ma du ma du ma ko du ma ko fale ma souligner ko loolu. Mhm. Euh, li tax li tax ma di ko souligner Cheikh mhm. Amar du n'importe qui ci Sénégal. nit ñi xam mhm. nañ ko yàgg naa def ci lu baax ci Sénégal. Euh, tey bu la neexoon nga ni sama sama rak la wala sama mag la wala soxlaw ma di xëy chaque jour di sonn ci bureau ba nga toog di xaar lépp fekk si la mais jigéen nga mais ngi ñafe yaa ngi def li nga war a def foog naa ne ñi ko weddi dañoo demul xel xelkom ndax xelkom itam liggéey bu ama am solo nga fay faral di def di dalal gan ñi di leen di leen di leen di leen euh, jox bernde yi ngir ñu mën a dem euh, ci ci tool yi te foog naa ne sax loolu moo gën a def euh, moo ma gën a tax a motiver ma ne noo Adja il faut mu ñëw ci plateau bi wax ñu un peu expérience am pour jigéen ñi nga xamante ne ni xëy na bëgg nañu mel ni moom wala ñu def li li nga xam ne moom la moom lay def. dëgg la lan nga leen mën a jox comme conseil jigéen ñi nga xam ne ñoom lay seetaan conseil daal mooy jàppale jàpp mu dëgër am confiance ci seen bopp. Mhm. gëm seen bopp parce que li muy wax noonu xel comme organisation gënu ko métti. Mhm. y a des centaines et des centaines de million de personnes yuy ñëw nga war leen dalal. dinga ci gis jikko bu nekk. Mhm. mais ci di dem daal ba xëy na mën a jàppale sunu rakk. Mhm. ba nga xam ne bés boobu fonk na ko fonk boo xam ne il faut ñu jàppale ko ci ba nga xam ne day taxaw dëgër. Mhm. te taxaw dëgër bi mooy jigéen ñi ñoo nekk ci ginnaawam foofu. parce que man ak samay rakk ak sama mag ñooy nekk. bu ma ko coordonné man li may coordonné mooy ma xool financement bi exact mhm. mën ko li ci war a dem discuter ak moom li ñu war a lekk li ñu war a jox ci tool yi li ñu war a def ni ñu war a defanteeg journaliste yi ak lépp dañ koy coordonné def ko réunion ak directrice générale holding bi maanaam daal euh, dafa jël jigéen ñi daal dooleel leen mhm. maanaam presque euh, société yi nekk ci holding bi ñu si bëri ay directrice générale lañ mhm. kon wóolu na jigéen ñi ndax moom boo waxee dafay wax ni jox jigéen mu diriger moo gën nga jox góor mhm. ndax jigéen dafa dafa am jom mhm. bëggul defet comme ni soxna si doon wax sànq jigéen bëggul defet te boo joxee sa sœur dara moo moo koy gënal toujours moom nee na mu jox frère am ndax xam na ne bu joxee sœuram kii du lekk alalam te jigéen am na jom boo xam ne du sàcc sa alal du lekk du dem foo foo ko santul te fi nga ko yem loo fa lay yem moom ci fànna googu yàgg na ma bëgg ma di ko jàppale mais euh, sama temps nga toog ministère rek may ma woon torop torop torop lool mais finalement ak ni ma ko xoolee ci réew mi ma xam ne jot na ma jàppale ko mm-hmm. nekk ci ginnaawam pour moo xam ne jigéen am na njëriñ. dëgg la te foog naa ni leer na leer na ko moom mais leer na ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci ci ci foofu. jigéen ñi euh, daal dama leen di ñaan daal ñu jàppale seeni càmmiñ lu ci seen liggéey xam ne jigéen lu mu jàpp mu dem parce que daf ciy ànd ak jom am ci fula am ci fayda te loolu mooy jëmale réew mi kanam. dëgg la gis nga réew mi. ñun nañ xam ne ñun jigéen ñi dañ ci am wàll mhm. wàll boobu mooy jëmale réew mi kanam dëgg la góor ñaa ngi ci waaye jigéen ñi ñooy nekk ci kanam ci nañ dem ba ci kanam foog man de yàkkamti naa présidente <laughs> euh, euh, ba ba